mais daf ko dañ ko dañ ko wuñu ko comme avant sax verdigu Sonko démb bi ay sa Sall waxoon na bu ñewé ñëwee wuñu ko du respecte pas les décisions de la justice euh, c'est c'est bien CEDEAO euh, mhm. euh Diagne solution tay par rapport ak li nga xamné mom modi euh, parrainage yi tey est-ce que japp nga ni parrainage nek na filtre ba nga xamné ne dana permettre ñu dal di ségg li nga xamné modi candidat yi parce que jog nee na candidat nga wa itam dal japp nañ dal ñu bëri dana am doublon dal si li nga xamné mom modi moo euh parrainage même bu fekkee yéen pastif moom euh, jamono ji yéen kenn waxagul seen wax. waaw effectivement comme ci parrainage ni ngeen ko waxee rek. Mhm. Euh, parrainage bi wax dëgg yàlla. Mhm. li indi sax parrainage bi nii. Mhm. bu ñu seetloo ne waa bennoo bokk yaakaar bii. bennoo tas ñoom tas nañ yaakaar réew mi. parrainage bii liñ ci gis. ba nga xam ne ne liñ ci waroon def ñoom ñoo may fit nit ñi bañ ñu am deux cent cinquante neuf bu ma juumul. ci euh, candidat ci candidat yi waaye parce que xam nga lu tax. Mhm. ah kër gi la goro bi nijaay ji yumpaañ bi maam bi ñoom ñoom rek ñu nekk ci yëf yi. kii mooy ministre nangam kee mooy doomu lengam kee mooy jox lële kee mooy yor mairie fële kee mooy maanaam ñu def ko comme gâteau. léegi nag bu ñëpp gisee ne comme gâteau la mais ñoom it kenn ku nekk ñëw ne bokk ci gâteau gi ne ma ne jox leen ma sama wàll. moo tax ñoom ñëpp. kenn ku nekk ñu nekk 230 et quelques wala 250 cent quelques candidats parce que ni ñu yoree réew mi lañ gis ne ne paacoo la moo tax keneen ku bëgg tamit nga ne nag comme Sénégal kenn gënuma ca yeeg nga am nationalité comme ñoom te ñoo xam ne ne tey yow 2012 yoruñ lu suukar màdd tey ñoom ñoo yor di guna ndaat ñooy maye ñooy distribuer ñooy def lépp ñeneen ñi tamit nga ne gënuñ ma ca yeeg xaaral ma ni ma bokk ci candidat yi même buñ ma joxul au moins dinañ wane ne bokk naa te bu nee bokk naa ma ni dinaa mën a bokk ci pàccoo bi saa di dire ñoom ci boppam lépp ñoo ko teg à mm-hmm. ñoom waa bennoo yi lépp ñoo def ba lépp wàcc ci suuf ba nga xam ne ñi warutoon ñeme parce que nag mm-hmm. président de la république du du caaxaan mm-hmm. nañ waxante dëgg du caaxaan du n'importe kii moo war a tëb rek ci ne lay rek fekk si ne da ngay bokk ci yëf déedéet mbir mi dangay xool kenn ku nekk fi mu jaar Nous ñoo xam ne seen jaar-jaar ak seen tolluwaay xel pour ñu mhm. parce que surtout nous avons ciy soxla sax mooy ñu set. Mhm. seen loxo set ñu ragal mais ñoo xam ne ne bàyyiwuñu xel askan bi moom li ci gis ci c'est vrai warutoon am euh, am na ba mais niñ koy doxalee ni bi c'est normal nit ñi parce que am na ñoo xam ne ne foog ñu jënd de bu ñu jënd du ñu am de gis nga kii di sa biram mii di wax ne ne sax ñoom du ñu jënd ñu ne waa Pastef ñoom dañuy jënd de mm. ñii dañuy jën <laughs> xam nga tax ñoom ñemewuñ de mm. man de gisaguma ñoom waa APR ñu wàcc terrain bi rek ne la waa bennoo la signeel ma déedéet man de gëw ko. man de gisee ko xaw ma nag. daa mel ni yow problème mais daa mel ni monsieur Dia amul problème parrainage. wala ñu dajale ay 40 ay doublons. waaw xam nga 94 000 parrain ñi naan ay 65 000. xam Ba parrainage. suuf xam ñu ngi koy dóor quoi. Mm. mu delloo ko ci parrainage parlementaire. parlementaire ça fait même pas 4 jours <laughs> <laughs> eh. a eu aux dernières élections mhm. nga ne da jënd parrainage da ngay nax sa mhm. je pense que parrainage tey jamono ji Sénégal jamono ji Sénégal mhm. le Beno bloc Yakar est la coalition la plus présente sur le terrain dañuy nax seen bopp ñaareel bi aussi li ñu bañ 2017 ak 2019 tey nangu nañ ni parrainage bi mooy li gën démocratie Sénégal